festival bi thème bi nekk euh, image et éducation donc occasion la ci ñun pour ñu mën a profiter daal di wan euh, euh, nit ñi li nga xam ne xale jotoon nañ leen koo jàngal trois mois ci ginnaaw ci affaire production donc ci photographie ba pare yàlla def tey mooy trentième anniversaire de la convention des droits de l'enfant donc occasion la ci ñun pour ñu woon nit ñi xale yi œuvre yi nga xam ne réalisé nañ ko durant le festival. te yoo xam ne ñoo ngi ci biir parce que def nañ benn classe de cinéma boo xam ne. dañoo invité benn costumière euh, madame Fatou Kandé Senghor donc euh, costumière dafa nekk métier boo xam ne dafa nekk ci biir cinéma donc occasion la pour ñu découvrir métier bi te am na aussi benn euh, atelier boo xam ne sur le financement de festivals comme ni ñu ko waxee sànq parce que war nañ mën a xool nan lañ mën a impliquer festival yi seen financement ci FOPICA bi donc day nekk benn table ronde boo xam ne festival yi yëpp la ñu invité pour ñu ñëw fekkee loolu. waaw dañoo soxla relève. vraiment soxla nañ parce que lu mel ne ay Moussa Sène Absa ay ay ay feu Djibril Diop maam béti bàyyi nañ fi héritage boo xam ne war nañ cee mën a profiter ñun tam def ay réalisation yoo xam ne nit ñi war nañoo mën a kontaan ci li ñuy def gaal fii cinéma demeewu fa noonu par rapport a geneen pays africains yi ma damay joxe sax euh, exemple Burkina Faso boo xoolee ñoom cinéma dafa bokk ci ñoom ñoom chaque samedi dañuy dem au cinéma mais fii boo xoolee Sénégal presque salle de cinéma yu bëri léegi supermarché la léegi am na yoo xam ne sax église la donc loolu occasion la ci ñun pour ñu wane ne cinéma war na mën a jógaat te ñun ñooy relève bi war nañ ci mën a taxaw